aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaaniirahim alhamdulilahi rabilalamin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu bokki taalibe yëpp fu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew euh, ci turu Serigne Amdi Fall mi nga xam ne mooy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ay cëram naal yi mu am yëpp mu mottali lépp te ànd ko taalibe yi eh, di jottali ak cant nag si murit yëpp nag ci lu weesu ak fii nu toll sant si taxawaay yi nga xam ne am nañ ko si mboolem ndigal yi nga xam ne rot na fi bàyyi ko kër Sëñ Tuubaa mm, ñu am ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu mat sëkk la ci gannaaw sëriñ bi sëriñ bi waxoon nu jottalil ko ay cantam te feddalil ko ko ak i ngërëmam mu jëm si mbooleem koo xam ne kii ah jàpp nga si liggéeyub sëñ Tuubaa bii muy si ndigal li ba mu mel ni ko sëriñ bi bëgge jëmit si mbooleem ñi nga xam ne am nañ yéene wala amoon nañ yéene jàpp si liggéey bii yàlla suñu boroom mottali seen yéene ba li ñu bëgg lépp ñu defal ko sëriñ bi sunu jotaay bii nag li ko waral mooy danoo jot ndigal ci sëriñ di Fall moom sëriñ moo du Mbend di jëwriñ maam Seera Fall mu jëm si ab soññi boo xam ne bii dafa jëm si liggéey bu màgg muy liggéey bi ñu dëgmal di liggéeyub tabaski yi yàlla sunu borom dogal mu am sas wu yaatu woo xam ne wii beraloon na ko si sëriñ Omar Seck mii ak ñi nga xam ne ñoom lu seqal alali maam Cheikh Ibrahima Fall la tax mu beral leen ko nag waxtu wu ne mu ngi koy soññee mu ngi koy wax di ko fàttali seen pastéef la ak seen yitte ak seenu dogu ak gëm-gëm gëm Cheikh Rafal te boolewuñ kook dara ak euh, li nga xam ne seeni wax waxtu wu ne dëppoo naag ak li nga xam ne moom la ñuy jëf di ko jëf si sëriñ bi sëriñ bi di ko jàllale fa mu war a àgg sëriñ bi di leen sant waxtu wu ne di leen gërëm si te jooju ak taxawaay boobu nga xam ne am nañ ko ci liggéeyub Seera Faal bi ndax li am solo mooy sëñtuwaa moom li mu bëgg faw mu am des na rek ñu fexe ba bokk si ña nga xam ne ñooy amal loolu yi nga xam ne mooy bëggu sëriñ bi sëriñ am di nag wax ni moom li ko fi indi te bàyyi ko fi mooy jëfe ndigali sëriñ Tuubaa yi rek mooy waxtu sëñ Tuubaa joxe ndigal rek mu jëfe ko noonu nga xam ne noonu la ko sëriñ Abdou Lahad Mbacke waxe woon sëriñ Modou Aminta Fall ne ko mbañum kër Cheikh Ibrahima Fall mooy ñàkk jëfe ndigal lu bàyyi ko kër sëñ Touba ndigal lii nag xam nañ ne ndigal lu wér loo xam ne naka jëkk sa jamonoy sëñ Touba ak Cheikh Fall ba fii mu ne ndigal li mu ngi dox ndax sëñ Touba moo ko santoon Cheikh Fall mu ko koy defal ba mu jekkee ba yàlla dogal gisatuñ leen ci seeni bëtit ña leen fi nekkal muy njabootu Cheikh Fall gi fi ne di ko defal njabootuk Serigne Touba si ndigal loo xam ne waxtu wu ne dañ koy fedd li mu jëm si ñoom kenn ku ne xam na ne Cheikh Modou taxaa taxawaay bi mu am si jullit ñi ak mbindeefi yàlla sunu borom yi muy doomi aadama yi nga xam ne bu nu àggee si jamono jii lépp lu tàbbi si moom da koy séddale ñii nga xam ne ñoo ko woo te xañ na sax seen loxo jotul seen gannaaw ak ñi nga xam ne ñëpp nag séq na ak ñoom teraanga muy loo xam ne nii loolu la fi sëriñ bi fàggul te bàyyil nu ko fi sas woow yi nag sëriñ Omar sekk mii ak alali Cheikh ji mu àndal sëriñ bi delloo waatoon leen ko feddali waatoon leen ndigal li santoon leen ñu am si taxawaay boo xamante ni bii faw xana booleem taxawaay bu nu mas am santoon leen it ñu góor góorgóorlu si ba def si jëf joo xamante ni jii jëf jooju dana gàcceel mbooleem jëf ju nu mas a jëf si liggéeyub Cheikh Fall bii loolaay sababu ñu teewaat fii nag ci kanamu murit yëpp nag di leen jottali ndigalu sëriñ bi di xam ni sëriñ Omar sekk mii sëriñ bi da koo jox ndigal mu yaatal ko ci mbooleem ku bokk ci alal imaam Cheikh Ibrahima Fall ak ku di soppe ak képp koo xam ne kii rek ndigal lii am nga yéene ànd kook moom nga am yitte ju mat sëkk ci ndigali tabaski yi fexe ba taxaw ci taxawaay boo xamante ni bii dana wax ni bu fekkoon ni mennum xar képp nga am sax war koo tabaskee nga nga àttan koo jël jox ko sëriñ bi te des ak moom ndax loolu la Cheikh Fall digg woon ak sëñ Touba da ne woon féeteel ak yàlla rek man ma féete ak yow lam ko jural nag ñun ñëpp gis nañ ko teg nañ ci sunu bët kon ndigal loolu yi dafa mel ne moo rotaat ci alal imaam Cheikh Ibrahima Fall yéen ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew xam leen ni sëriñ bi sëriñ Omar Seck mii jot na ndigal lu jaar ci sama jëmm ji yore kàddu maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëriñ Amdi Fall mu wax ni ndigal lii nañ ko jot jottali yaatal ko xam ne fépp fu kàddoom àgg mu joxe fa ndigal lii ñu xam ne ndigal li si sëriñ Amdi Faalum sëriñ Modou Fall Mbenda la bàyyi ko mu sant ko ko te bàyyi xel lool si ñoom muy alali maam Cheikh Ibrahima di séentu lool seenub liggéey kon nag ñoom it ñu xam ni war nañoo am taxawaay bu mat sëkk ba ko sëriñ bi bëggee ak li sëriñ bi yaakaar si ñoom ak li séentu si ñoom lépp ñu def si loo xawee sax kawe na njortu sëriñ bi loolu la sëriñ bi waxoon ni nanu ànd ak sëriñ Omar Seck fësal ko si mbooleem taalibe yi mbooleem murit yi fu nu mën a nekk si biir réew mi ak si bitim réew ñu xamee ko noonu kenn ku ne xam ni daal am na ndigal lu mat sëkk nag ndigal loo xam ne ndigal lu ñor sëriñ bi la ndax jàmbaaram ja day di magam ju baax ja sëriñ Cheikh Fall jëmb daaw bi mu mujjee taxawu tabaski yii wax na ni yóbbu woon na lu ëpp junni ay xar ci ay xar yoo xam ne xar mu ne mel na melokaan moom mu war a mel ren jii nag sëriñ bi amoon yéene ni nga xam ne noonu la yoon wi baaxoo nga xam ne tànki kanam rek la am am tànk amul tànki gannaaw lim boobee sëriñ am sëriñ Cheikh Fall jëmb yóbbu woon daaw mu bëgg ren jii mu yóbbu lim bu ko weesu lu baree baree bari loolu nag mu mu moo taxoon mu yéene taalibe bi yëpp nag tàbbi si féex googu. moo taxoon mu yaatal ko kenn ku si nekk mu am ndigalul boppam lu mu la jox waaye yéen ñi di alali Cheikh Fall nag ngeen am si ndigal lu feddaliku ndigal lu dëgër ndigal lu neex sëriñ bi ndigal lu yaakaarlu te loola seen jëf ak seen pastéef ak seenu yitte ak seenu taxawaay moo waral sëriñ bi teg leen foofee mu teg mu leen teg ba ndigal lii mu ne mu santaane ñu yaatal ko si yéen ñëpp ngeen xamee ko noonu xam ne sëriñ Omar sëriñ bi bind na sa aw kayit jox ko xamal ko ne ko fépp foo teew lépp loo fa jëf wala loo fa wax samay waxa sama jëfa loola nag kenn kilifa mënu ko weesoo ka mu yilif kon sëñ Omar ndigal laa ngi noonu yéen alal imaam Cheikh Ibrahima Fall ndigal laa ngi noonu lépp lu ngeen mas a jot si ndigal day jëfe ngeen ko noo xam ne nii neex na sëriñ bi lool bëgg na si lool ay cantam du du dakk waxtu wu ne mi ngi feddali ay cantam ak i ngërëmam ak i ñaanam mu jëm si yéen kon nag ngeen xam ne amaan ngeen digal lu rëy amaan ngeen digal loo xam ne lu ñor sëriñ bi la ngeen def seen yitte ak seen pasteef si jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee lépp lu nu si yaakaar yàlla nañu ko sëriñ bi defal ñuy ñaan nag si barkeem moom sëriñ di Fall mi nga xam ne moom la ñuy wax si turam yàlla na suñu borom kattanal leen ba li ngeen si yéene lépp rek sans borom defal leen ngeen mën koo jëfe noonee wala nu kawe noonee nga xam ne noonu ngeen ko yéenee te yàlla def la ñuy jëf lépp nag Euh, daa méngoo wala dëppoo ak mbégum sëriñ bi ndax sëriñ moom lépp lu nu ko jox mu jàllale ko Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy sëñ Touba Khadim Rasoul lépp luy dem nag jóge kër Cheikh Rafal jëm kër sëñ Touba dafa war a mel melokaan woo xamante ni bii day day doon melokaan yi gën ci melokaan mooy nanu sàmmoonte wala nan am yéene wala na am yitte si bu nuy joxee ay xar na doon xar yoo xam ne yu tedd la yoo xam ne nii bu ñu ko yóbboo si kanamu sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha dana xam ne jëfi Cheikh Rafal kat nii rek la baaxoo te nii rek la masamel koo xamante ni kii it xañ na sa man-man ak sa ak sa sa doole àggu fa fa sa doole àgg nga jokkoo si ak Serigne Omar mii su ko defee lépp luñ taxawaay bu nu mën a am ba mën a am lim boobu yi nga xam ne moom la ñu yéenee jox sëriñ bi ci turu alali maam Cheikh Rafal taxawaay boobee ñun ñëpp danañ taxaw ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko nii kon ndigal laa ngi noonu ñu fas yéene see tab bi di ñaan yàlla sunu borom mu kàttanal nu ba nu nu ko bëggee rek nu amee ko noonu sëriñ bi nag mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal si mbooleem lii nga xam ne jëf yi weesu koor gi ñu génn rek muy ndogu yi liggéeyam ndogu yi am ngeen si taxawaay boo xamante ni bii kenn kenn ku leen si dab amut am ngeen si taxawaay bu mat sëkk te loolu la sëriñ bi seere na ko la ngeen indi fa sëriñ ba si ay gëléem ci ay nag ci ak xaalis si lu jëm si liggéey ndogu yii sëriñ bi gis na ko te xam na ni liggéey la boo xamante ni bii kenn sutu leen fa ab liggéey kenn ëpp leen fa ab liggéey loolee nag moo feddali euh, mbégte ak cant gi nga xam ne moom la sëriñ bi di sant waxtu jëm si si yéen te la ko jiitoot taxawaay boobu rek ngeen am ndax ba mu fi toogee jataayub Cheikh Rafaal ak léegi ndigal lu mu jot rek taxaw ngeen sa taxawaay boo xamante ni bii taxawaay bu mat sëkk la boo xam ne kenn du ko laam-laamee te boolewu leen ko ak wax boolewu leen ko ak njistal boolewu leen ko ak wonewu boolewu leen ko ak naw jëf ja da di jëf kay xeeb ko lool di sàkku si sëriñ bi mu ñaanal leen waxtu ne ngeen di man lu ëpp loolee seen yéene moom sëñ bi xam na ko la ngeen wax ni jox nañ la sunu bopp àddina ak àllaaxira dëggal ngeen ko si seen i jëf seen blaat daa waxoon ne boo joxee sa bopp moomatoo ko la ngeen am lépp nag jox ngeen ko sëriñ bi kon dëggal ngeen seen wax joojee te it sëriñ bi la ngeen ne ko lu ngeen doonu diggal loonu diggal nu def ko te loonu tere nu bàyyi ko lu leen sëriñ bi diggal digal masa diggal def ngeen ko te jaarul leen si lenn lu nuy tere loolee nag moo firndeel wala moo dëggal cant ak ngërëm ak xol bu seddu sëriñ bi mu jëm ci yéen kon seen xel dal da nga xam ne làmb leen fu seen pas-pas àgg rek man-man bi dana leen dabu dana leen dab na ngeen ko bëggee da ngeen ko amee noona barkeem maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ baa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal ñu àgg seeg jàmm am si ndam lu weesu yéen si daa am yëpp nag di di di ñaan ñun ñëpp nu fekk ko te tal ko àndandoo ko di ñaanal Cheikh Modou Mountakha mu yàgg fi ak njabootug sëñ tubaa gépp di ñaanal njabootug Cheikh Fall géppit nag ñu yàgg fi te ànd ko wér te am kattan ku ñu liggéey la Serigne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.